suma ki jëloon tawam bi rek mhm. khalifa ko xutbub yalla bu mag borom ñaari diwan, khalifa wallahi wallaahi rek doyoon na wallaahi maam xalifa nee mhm. darsu mhm. musuma ko jël ci kenn ku dul sama baay ken musuma jangal ben darsu sama baay wa huwa amiru shuara te kooku mooy amiru shuara ko moom ñepp ko d'accord sëñ si Ahmed Tidiane si almaktoum gis nga shahadaat yu rafet yi mu daan wax ci Seex Abdoulaye daan yónnee ca lew na nga seen mhm. ñu koy jox diwaan bi mhm. mu rafet lu naw maam xalifa fonk ko ci ci ci ci waayam koo defee kooku mhm. bi ñu def amiru soara fi diko jangante ci marok mom lañ jëlone bobu la wax moy premier <laughs> motax kon bu taxawé né man khassahu bi wadihil bayani, mhm. min bayni kulil bidi wa suudaani tahaddusan bi al wahaabi mhm. bi rahmi an fil al murtad istay istay ñu ko ñëmé wax bari wallahi taxawal joxat bi cheikh na tidiane ne ko ni nga ñaké ñaarel ci khutbu yalla yi mhm. non la ñaké ñaarel ci ñi lay tagg فما لي ثامن في مديحك سيدي كما ليس في الأقطاب مثلك ثاني اسكي كان مسوك الله الله الله كون دا ماني بن تيري بن نيت كوم طالب خليفه نياس رك دوينا خليفه بيغا خا بو دكتور عمران كبا ديوان بيم شيخنا احمد التجاني بي طريقه بي ديوان بو نونو كاليتي كانتيتي كين mu ne tamit diiwaan bi mu def ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ commencé tagg yonantu bis ni ki tey diiwaan bu amee noonu qualité quantité mhm. kenn mosu ko def kon mooy borom ñaari diiwaan allah allah mhm. kooku rek bu fekkoon ne moom la maam xali moom la maam alaaji abdoulaye ñas taalifoon ci nit mhm. doy na waxuma la ay rakkam waxuma la ay muqaddamam waxuma la yeneen ay taalibeem nga xam ne gox boo mën a dem rek da nga fa fekk ponk la maam El Hadj Abdoulaye Niass moo fa nekk. kon lim taalif ci ay téere. Mhm. lim taalif ci ay nit a ko ëpp. Mhm.